au pouvoir gis nañu biñu accéder au pouvoir ak légui dafa melni ni immigration clandestine bi dafa gëna gëna gëna gëna yokku ndox mi di gëna gëna yobbu jeunesse bi mu melni euh, espoir dañ ko commencé won di ñak carrément ba fii may wax ak yow sax waaw mooy li ma wax rek xam nga nit mom bu fekkente ni dafa am lo xamante ne ko ko bëggal mm-hmm. tey mu doon garabu mango wala garabu mën naa ne garabu mango comme le président Diomaye jëmbatoon na fi garabu mango. nga mm-hmm. bëgg garabu mango boobu meññ ba jariñ ko. danga koy xamal ne ko gaayowul noonu na ko encadré ba bu ko jur gi yàq. na koy suuxat ba bu mu manqué ndox na ko couvrir ba ngelaw li bu mu ko emporté. bu ko defee pendant un an deux ans dina tegu ci yoon woo xamante ne nii dina gis tóor tóor mm-hmm. te buy gis tóor tóor fruit moo ci topp loolu ñun Mmh. moo tax ñuy incité à que lu mën di am bu ñu bu ñu bu ñu sacrifier seen bopp parce que géej gi amul bànqaas mmh. cent ñuy jaar ci géej gi wala quatre vingt quatre vingt dix pour cent yi ci la ñuy des d' accord ñu ngi xamal ne Diégui Diop Sow moom nga xam ne dañ ko téewoon boobaak léegi foofee ca euh, division des investigations criminelles daal dinañ koy bàyyee mu delluwaat ci njabootam information bi léegi nii lañ ci daal di jot ah Moussa ba léegi rek balaa may ñëw ci dinaa la interpellé ci mbirum arrestation yooyu. Mhm. waaye balaa ma si ñëw rek ñu wax ci secteur bi nga nekk di secteur informel ak projet bi. Mhm. Euh, si ban côté ngeen gën a gis seen bopp ci li nga xam ne moom mooy euh, projet bi nga xam ne génn na tey. bon xam nga boo secteur informel bi mën naa ne ba ci secteur artisanal bi de manière générale parce que ñi mm-hmm. nga xamante ni nekk dans l'informel. Nous ñu ci ëpp ay artisan la ñu woon yoo xamante ne xëy na seen métier am na nu mu demee mm-hmm. ñu dem di commerçant di marchand ambulant ainsi de suite mm-hmm. mais boo xoolee projet bi nga xamante ni tey moom la ñu tegal tey mën ci côté formation professionnelle un budget de cinq bi dégagé na annuellement pour former les jeunes parce que am na loo xamante aussi boo ko développer ci il faut une bonne formation il faut une bonne formation un bon encadrement mm-hmm. artisans yi aussi boo xoolee récemment nii rek ministre euh, Cheikh Diba mi ngi koy wax mm-hmm. petites et moyennes entreprises yi nga xamante ni peut-être mën nañoo gagner marché comme commencé de un million jusqu'à quatre-vingts mm-hmm. avec les femmes ñooñ ñooñ ñëpp ubbil nañ leen buntu pour marché yooyu ñu ko loolu yëpp li ñu si jublu mooy fexe yi xale yu toog petites et moyennes entreprises yi mën a développé parce que boo demoon boo da ngay dugg si benn kër Euh, ben PME lay don rek. la petite famille ñom ñoy produire li ñuy produire ñu diko jaay amu dañuy am indépendance totale. Mhm. te lolu mën na né mën na nek dans tous les départements du Sénégal donc projet bi ak Pastef ak artisan yi lepp lo xamanteni ni ñun en tant que des membres du MONAP mën nañ ko orienter kilifa yi nga xamanteni ni ñoo jiite réew mi ci ñu contribuer à ce que secteur artisanat bi jëm kanam. Mhm. ñun on est prêt parce que lu lu lu rare la aussi politique. Mhm. parti politique taxaw ne am na mouvement boo xamante ne ay artisans ñoo jiite mhm. bokk ci parti bi mhm. bokk ci bureau politique nous ñu élection législative personnes investir mhm. je peux inciter le coordonnateur Babacar Baror mhm. moi-même qui vous parle Moussa mhm. département de de de Massar ak Betty Touré donc quatre personnes qui artisans suis Sénégal des Sénégal responsabilité bu la considération bu Sénégal, ñun ñi nga xamante ne ñu investir ak ñi ànd ak ñun ci bureau exécutif monab bi suñu devoir mooy vulgariser loolu ba artisan yëpp xam ni état bii fi nekk nii ni mu joxe cër ñi cër mag ñi joxe ko ni ndaw ñi joxe ko ni doomi daara yi joxe ko ni jigéen ñi noonu la ko joxe artisan yi mhm. te artisan yi ñoo gën a bëri ci réew population active bi artisan yi ñoo ci gën a bëri mhm. donc ñun xam nañ ne bu encadrement amee tuuti nit man nañu fexe ba résultat yi bëgg ci taux de chômage bi wàññeeku xale yi mën a liggéey mën a formé wu mmh. on est prêt pour les accompagner mmh.

promesse yi jaar ne respecté wuñ ci dara tay est-ce que japp ngeen ne yéen nga am espoir ke ni tay ji bu bu bu lepp yemé ya, dinañu dinañu def loolu. xam ya. nga xam nga dama lay wax man suma baye sama activité yépp mën mhm. na dem fu né mhm. amee xaalis. Mhm. ndax projet bi. caaxaan da ci nekkut. té au delà de man. l'homme qui l'a porté gëm nga projet bi. non au delà de man l'homme qui l'a porté. Ousmane Sonko mi ko porté. lim ko ak fim ci yegg tay wax nako néna tay képp nañ la mm-hmm. président wax na la semaine passée mais président Ousmane waxaat na mm-hmm. kuñ ci jox dara nga kenn protéger dans dans le monde entier mm-hmm. un président élu à 54% n'est un jeune de 44 ans Sénégal ñu xeex ba et quelques personnes ci ñii blessé ci ba faaw am nañ ay ay ay handicap yoo xamante nii mun naa ne dootul wérati ci seen àdduna mhm. loolu ñun lu ñu mën pour réalisation projet boobu am dinañ ko def mhm. te ñi ñu jiite xam nañ ne nelawatuñu lekkatuñu naanatuñu ndax mhm. loolu kon ñun ñi nga xamante ni dañoo nekk seen ginnaaw dañuy sensibiliser jeunesse parce que président Ousmane wax na ko tey nee du du du eh, je crois que Eliman kan la doon tontu loolu maanaam du projet boo xamante nii dañ naan dañuy woo ay experts ñu def ko dañuy pare jox ko askan wi ni leen yéen a ko moom am président Ousmane li mu indi. indiwu ko pour pourtant expert lañ woo mu présenter projet expert ay expert lañ woo ñu defar ko ay sénégalais. mais dama li ma bëgg wax mooy. Mhm. bu ñu paree. Mhm. sénégalais ak jeunesse bi lañ naan lii seen yëf la. en bu bëggee mu dox. nii ak nii lañ ciy àndee ñu doxal ko parce que gouvernement bi kese mënuñoo def dara de direction yi kese mënuñoo def dara de faw acteur à la base yi nekk sur le terrain mm-hmm. dëggal seen bopp ñu boole ko nag ak jub jubal tey jubbanti loolu buñ ko défé rek Sénégal dans 2 ans dina téw ci raay bi. jub jubal jubbanti ak euh, Moussa li fi jot am yépp scandale yi nga xamné am nañ fi bu Azer bi gis nañ ko fi mm-hmm. ginnaw bi nga xamante bu ONAS am na feeg yi mel ba wàcce ci bi nga xamante député bi di Abass Fall ñu koy tudd ci walum loubal euh, wala boko walum euh, corruption 5 milliards yi ñi wax fi ak yini mel <laughs> ñu gis sax ministre bo xamante moy moy mëna jey dem ba su dé mo lek 5 milliards mo tay lool yépp japp nga ne ci jubbante la nekk. xam nga def ci am yoo xamante ne nii bu fekkente ne nii dañu commencé. Mhm. le cas de du docteur Cheikh Dieng. Mhm. am loo xamante ni leerul. Mhm. rek président wàcce ko. loolu rek mooy jub jubal bo boo ca la waroon a wàccee ministre de. non non non non attends attends leerul. xam nañ ne ci ci ci directeur directeur directeur ONAS la. mu dindi ko. directeur ONAS